oui déjà opposition presque Qu'est-ce euh, pourquoi en tout cas système de parrainage bi euh, gis presque tous les gens, ci en tout cas à sa façon euh, dénoncer ce nga vous avez dit conseil constitutionnel maintenant problème ce que j'aurais vu nga na a efficace. Mm. maanaam mu doon Nous benn benn mu dajaloo waxandoo en tout cas yëkkati benn kàddu c' est que gis naa benn genre collectif bi nga xamante ne gars yi mettre nañ ko sur pied en tout cas surtout les premiers candidats qui étaient éliminés d' office ñooñu ñëpp presque en tout cas euh, plus d' une dizaine. regroupé woon nañ woon nañ ñoom xalifa Sall. bon ñoom xalifa Sall cest à dafa am candidat yoo xamante ne doo leen dégg. si lii ñoom képp koo xamante ne jaar nga conseil conseil constitutionnel baax le nga ñii ñëpp doo leen fi dégg. te nag tamit dafa am loo xamante ne dafa jar a bàyyi xel. Hmm. 21 euh, candidats l'ont validé pour l'instant. Hmm. Donc, ce n'est pas 21 candidats confirmés. Mm. Le dossier pour un candidat présidentiel, 9 dossiers ont déposés. Mm. 9 dossiers, non, parrainage ben la okay. Alors, ce qui laisse dire qu'il y en a 8. Nous allons examiner. Il y a un conseil constitutionnel qui examiner ben par ben. xam nga dama di tout le temps may Khalifa Sall Karim est-ce qu'il y a une crise fiscale parce que y a une crise fiscale. amul ah ci yoon waroo mën a bokk ci élection. si la bokk parce que tey xam nga tey mais mais l' esprit mais l' esprit de citoyen contribuable ça veut dire quoi tey esprit yu un citoyen contribuable. Hmm. mooy citoyen boo xamante ne moom day jël ci am-amam mu koy dugal ci réew mi. am-amam mooy lan mooy. Hmm. impôts yi ñuy fay am na impôts yoo xam ne c'est direct. Hmm. da ngay jënd nga fayaale TVA. Hmm. sans pour autant même nga sentir ko. am na impôts yoo xamante ne tey boo nekkee euh, en tout cas njiitu entreprise wala quelque chose de de ce genre là. Hmm. état da la koy dagg. boo nekkee salaire état da la koy dagg. mais loolu noonu yëpp boo demee euh, en tout cas di nga dem dëkk yo xamantene tay buñ la jappé ci fraude ci ay fraude fiscale. da ngay nek ci problème bu bëri sax. pour mëna don président. pour mëna don candidat je veux dire Bo démé tay États-Unis l'un des problèmes bi nga xamantene mu ngi top Donald Trump moy lan mooy que ne gars yi ñu ngi ko doon toppee ci ben nu mu tudd sax ci benn évasion fiscale. boo hmm. xamante ne ça date euh, bellurette. Hmm. donc yooyu noonu dafa doon élément yoo xamante ne c' est très très très important. te instant tout le monde est en sursis instant bi mais ñëpp a ngi si sursis. fu mu ne nii mënu avec assurance que ni ñii ñëpp danañ jàll. c' est à dire 21 et un personnes jàll nañ parrainage maintenant le reste conseil constitutionnel dina continuer di examiner dossier yi. ñu hmm. xool candidat euh, définitif yi. kan ak kan lay donc je pense que aussi loolu tamit foog ñu bàyyi xel. mais bu loolu yëpp jàllee. Euh, gis nga parrainage bi man dama koy wax Euh, l'esprit de parrainage. Hmm. baax parce que hmm. aussi day day rappeler euh, ñu wax ci parrainage. Hmm. parce que parrainage Macky Sall andiwu ko fi fi la ko fek. ok Abdoulaye parrainage. fii la ko fek. parrainage presque depuis jamono Abdou Diouf te jamono yoy non parrainage nu don doon doxee ak nu muy doxee léegi jamono yoy non bo bëggee kan lañuy tek teg parrainage mooy koo xamante amul parti politique. candidat indépendant la. dañ koy naan donc demal ci population ñu xol est-ce que am nga représentativité. Hmm, am na base bi. voilà ñu door la door a door accepter sa sa candidature. Hmm. parce que jamono nonu euh, en tout cas candidat indépendant bo hmm. amul parti politique mouvement la yor en tout cas il faut que mu def li maintenant les gens ñëw ba méthode bi dafa changé wu candidat indépendant Moi, xam nga sa parti politique hmm. da ngay dem ci parrainage alors en fonction aussi de du nombre d'évolution des des inscrits sur le fichier électoral aussi da ngay gis ni minimum ak maximum des variés mais dans tous les cas l'esprit de parrainage baxna parce que aujourd'hui aussi Sénégal c'est-à-dire dañoo mënul financer euh, l'élection présidentielle de 93 candidats c'est-à-dire le problème même même avec une dizaine de candidats moi je pense que c'est trop parce que pourquoi plus candidats candidat di plus l'électeur a une confusion sur son choix mm. parce que bu candidat yi est mënoo mm. am temps bu doy mëna déglu mm. su yow ce choix day nekk choix boo xamante ne le plus souvent du doon choix bu rationnel. parce que mayuñ la temps boo xamante ne da ngay saytu kenn ku ci nekk. xool ba ki la doy. Hmm. donc boo xoolee li ci ëpp mooy on fait des choix choix yoo xamante ne en tout cas du du ay choix rationnel dañuy fal ci njiit ci erreur ñu dem ba ci biir yow mi sax nga xamante ne voté nga sa waa ji da ngay dem ba ci biir nga koy rëcc. nga naan Cees ma xamoon alors yooyu noonu doon anomalie yu rëy. ba tax ni donc dafa manqué encadrement. dafa manqué encadrement donc boo xoolee ci principe yooyu noonu nit ñi mën nañ rafetlu l' esprit de mm. parrainage. Mm. moo tax ma esprit de parrainage maintenant la pratique du parrainage c'est ça. Mm. où le bât blesse. jàpp nañ ni tey booy dem parrainage. avant parrainage bi nit ñi di dem parrainage ñoom mënoon nañ fexe ba tax ni fichier électoral bi kenn du ci am wérante c' est vrai fichier bi tey mënuñ ko jox leader d'opposition, opposition yëpp bu ñu wax dëgg te yàlla tax parce que tey fichier bi boo ko joxee nit ñi di nga gis candidat boo xamante ne mën na jël fichier bi remplir déversé ko ci ay candidat ay ay ay param ku ci mën dara après double wax ñoleen ci ciy fekk rek. 15 jours avant lañ koy joxe. mais même joxe bobu non je pense que ñom buñ démé bu clôturer parrainage ñina ne parrainage tey lañ ko clôturer. Hmm. ñom war nañ mëna am ben délai bi nga xam dañuy jël fichier joxé ko. Hmm. comme ça candidat bu nekk da nga yor fichier à ta disposition te buñ paré buñ la waxé li ak li nga am ci doublon doublon c'est pas grave mais buñ la ne aussi tel nombre de personnes nga am non inscrit ou bien introuvable sur le fichier yow nga mën am possibilité bo xamantene da nga mën a saytu. parce que maa ngi ko don wax légui légui Mary Teuw Niane c'est un électeur. <laughs> ken wérante ko élection passée. kaam doy na waar en donc nan la mën dem ba conseil constitutionnel ñu koy naan yow mi candidat nga paré na sa bop hmm nekkoo ci fichier bi. dëgg yooyu noonu dafa doon tas de choses yoo xamante ça remet en cause euh, le système du parrainage. en hmm. tout cas quoi que l'on puisse dire je pense que le système n'est pas bon. Hmm, c'est clair. alors système bi euh, wóor nañ ko daal di war a mën a bu baax baax baax baax donc euh, du côté de la régie les victimes hein, du parrainage se poursuivent bokk na ce ki n'a xam ne que moo di Abdourahmane Diouf à la deuxième minute ñu ne aussi mu dinañ ko daal di recalé te bokk na aussi si ki nga xam ne que Bougane alors régie suñu paree rek ñu dem déglu la.

les sympathisants et alliés de Gumsabop. Assalamu alaikum wa coalition Bougan 2024. Euh, Taï, une mauvaise nouvelle. C'est vrai. Parrainage, bi éliminé Nenyo. Mais je suis sûr que ce n'est pas une surprise pour vous. Je suis sûr que Haron Gemko. Santé Yala, Amnen am pour éliminer leen

mooy lan ngeen taxaw pour que li ñuy xeex muy système bi fi nek ñu mën ko fi jële rassurez-vous plus Macky Sall me fera de l'injustice plus ce sera le carburant moy nek carburant bi may dolli engagement ak motivation tay la gëna taxaw pour xeex pour yeen les Sénégalais Bougane Gueye li mu doon xeex démb tey ji lay continuer di ba xeex

mais ñi togon doon nelaw seen kër sénégalais yi xamuñu leen non ñooñu mën nañu jàll parrainage c'est pas grave rassurez-vous je serai avec vous sur le terrain nous allons combattre l'injustice dans ce pays yal na yàlla sàmm Sénégal yal na yàlla taxawu Sénégal jóg leen liggéey bi mu ngi ci kanam pour dégager le système et les hommes qui l'animent jërëjëf asalaamaaleykum sénégalais sénégalais asalaamaaleykum les sympathisants et alliés de Gumsobop. Assalamu alaikum wa coalition Bougan 2024. Euh, Taï, amgen une mauvaise nouvelle. C'est vrai. Parrainage, oui, éliminé Nenyo. Mais je suis sûr que ce n'est pas une surprise pour vous. Je suis sûr que Haron Genko. Santé Yalla. Amna pour éliminer len comme vous le savez dañ leen kasso ñooñu man gënuma leen am na ñoo xam ne tey nañ mais permettez-moi de remercier et de féliciter tout le monde ñëpp ñi nga ñu ngi ci gëm sa ñëpp alliés vous avez fait ce qu'il fallait vous avez travaillé même nos détracteurs

moy lan ngeen taxaw pour que li ñuy xeex muy système bi fi nekk ñu mën ko fi jële rassurez-vous plus Macky me fera de l'injustice plus ce sera le carburant mooy nekk carburant bi may dolli engagement ak motivation tey laa gën a taxaw pour xeex pour yéen les Sénégalais Bougane Gueye li mu doon xeex démb tey ji lay continuer di ba xeex

doy na waa trop trop trop trop suñu gisee ni